dañ ñëwoon def suñu déclaration ci li nga xamante ne moo fi xew parce que dañoo prévoir oon def suñu conférence de presse fële sa site bi tey jii malheureusement police dañ ñu woo démb xamal ni ñu dafa am benn incohérence bu am si suñu démarche parce que dafa am benn demande boo xam te ne dañ ko waroon a déposer te déposé wuñu ko donc ñoom dañ ñu interdire sous euh, l'instruction du sous-préfet que ni ñun mënuñu def euh, conférence de presse bi foofu si site bi donc ay nit leen ñoo xamante ni depuis dix ans ñu ngi foofu di yëngu mais kenn mësu ñoo xam ci lu doyadi wala loo xamante ni da yàq wala loo xamante ni da ngay forcer donc on se conforme à la loi ñun ñu ni leen d'accord nañu li nga xamante ni moom ngeen wax dinañu ko def looloo waral tey ñu woote journalistes yi pour xamal ni ñi ni on a euh, ñoom arrêté ministériel bi nga xamante ni moom lañ ñu wax ñun dañuy conformer wu ak loolu jël décision boo xamante ni ëllëg ñu dem déposer sunu lettre boobu nga xamante demande bi nga xamante ni moom la ñu demander pour ñu def ko pour que ñu mën a def li nga xamante ni moom la bëgga donc tey bu ñu taxawee fii di wax c'est parce que <coughs> dañu am lu ñu naxari loolu ñu naxari nag kenn teguñu ko ku dul Momar Talla Gadiaga parce que ba nu fa jëndee ay terrain depuis yàgg na moom moo ñu signalé woon kayit yi nga xamante ni moo tax ñun ñu jënd foofu ñu mën a nekk foofu ñu nekk fa aussi ànd ak moom ci xeex boo xamante ni yàgg na fu nekk ñu dugal ko fi ba si présidence ba ñu fa demee ñu nag moom ñoo ànd malheureusement ñëpp xam nañ li ci xew il nous a tourné le dos donc moo waral boobu ba léegi ñun ñu nekk fi di kii mais autorités yi nga xamante ni ñoo fi nekk tey da leen di sant di leen gërëm bu baax a baax parce que def nañu déplacement dimanche bi passé dem Kër Sonko avant ba fa jógee am nañ information que ni lépp lu nekk ci zone boobu arrêté na travaux yi donc dañ ko ciy remercier di saluer décision bi nga xamante ne état bi moo ko jël ci wàll woowu. beneen bi ci des ñu leen di ñaan ñoom autorités yi lu mu gën a gaaw si suñu situation ñu taxaw ci parce que aussi ñun dañoo jiite ñoo xamante ni ay néew gi doole lañu ay nit ñoo xamante ni euh, ñii ñu ngi ci location fin du mois bu jotee balaa ñu kaa lijjanti dañuy sonn trop fu nekk la ñuy dugg de à droite am ñoo xamante ni fa dëkk tey. ndox ma nga fa taa ba nii may wax ak yow nawet bi jeex na bu yàgg ndox ma nga fa taa bu nawet bi ñëwaatee xaw ma lu fay xew donc nan ñu dimbali nu mu gën a gaawee ñu régulariser suñu situation loolu la ñuy demander beneen bi ci des ñu ngi demander à ce que l'État mu mettre en place benn commission boo xamante ni ñun dañ si nekk ay acteurs ñun ñi nga xamante ni tey ñoo occupé site bi foofu ñu am fa des représentants ñi nga xamante ni ñooy borom tool yi aussi ñoo ñu jaayoon am fa des représentants parce que rapport yi nga xamante ni moom la. ñi fi nekk boog les démembrements de l' yi fi nekk rapport yi ñuy joxe c' est les mêmes têtes qui étaient là te dañu doon seetaan donc ñoom ñi nga xamante ne ñoo koy jox rapport yi ñoom ñi fi nekkoon démb ñoo fi nekkaat tey bu continuer di xool rapport yooyu amaana duñ ko jox la réalité des choses ñun ñu bëgg nag moom ci boppam mu jël benn commission mu mettre en place benn commission boo xamante ni day regrouper non seulement des représentant de l' mais des représentants des collectifs des borom tool donc loolu la ñuy demander état bi. voilà beneen bi si topp ñu ngi demander aussi mu def audit foncier bi nga xamante ni moo nekk sur le long du littoral li ko dalee yëmbal ba Malika parce que su ma waxee loolu am na benn 37 hectares boo xamante ni joxe woon nañ ko fa moo waral maire ni foofu dafa am ay problème ñu may ko 20 hectares pour mu fay ko yan problème la war a am. te impacté yi nga xamante ni moom la waroon a jox foofu euh, liñ ko joxoon ci ci ay hectares 37 hectares ça suffisait largement doyoon na sëkk. donc yan problème la am foofu ban ko war a mën a jox vingt hectares yoo xamante ni ci ay toolu jàmbur lañ ko teg donc vingt hectares yoo xamante ne ci ay toolu jàmbur lañ ko teg ñooñu nekk ay membre ci collectif bi donc loolu aussi ñu ngi demander état bi mu def benn audit boo xamante ni dinañ xam exactement li xew foofu beneen bi ci topp dañuy demander benn délégation spéciale au niveau de la mairie de Malika parce que population yi sonn nañ mooma taala gajaga lam fa def bari na lam fa yàq moo ëpp lam fa defar donc ñu ngi demander à ce que ñu jëlee ko fa ñun dem nañ sax ba déposer benn plainte contre Momar Talla Gadiaga mais jusqu'à présent amuñu si benn suite auprès du procureur fa lañ déposer suñu plainte mais depuis lors amuñu benn suite boo xamante ni wax nañ ñu ko ci plainte boobu. voilà bi ci topp aussi nañu revi ñu ngi demander état bi ñu def euh, ñu réviser PUD bi nga xamante ni moom la ñu lal foofu te ñëpp xam na ni PUD bi la ñu fa def mooy la fa nekkoon avant déclassement bi. ñun ba ñu defee demande déclassement bi président Macky Sall demandé woon à ce que ñu régulariser ñu ñoom dañu jëlaat la fa nekkoon ñu reconduire que donc état bii fi nekk soo moytuwul dinañ dinañ leen kii ci même erreur yi nga xam te ne moom lañ defloo woon Macky Sall jëlaat ñu fi nekkoon reconduire leen xaw ma nag ñoom ak ñoom la leen seq ci suuf mais am na loo xamante ne lënt na suñu bopp à chaque fois bu ñu waxee les mêmes promoteur la ñuy jëlaat ñu tegaat leen foofu ñu ngi demander état bi mu réviser waat PUD bi nga xamante ne moo nekk si zone boobu. ce même regroupement de collectifs qui s'était déplacé au, chez, le, chez le Premier ministre pour euh, soumettre, euh, n'est-ce pas, un ensemble de documents liés à, au collectif. On a le lendemain de, de, de ce déplacement, le lundi, le, le lundi passé, on, a, on s'est déplacé pour déposer un courrier officiel pour saisir de façon officielle le Premier ministre sur la situation du de mais aussi sur la situation d'environ de, de, de, de 3500 familles impactées appartenant à ces collectifs. Et mm, heureusement, Alhamdulillah, jusque-là, la réaction de, de, de, de, de l'autorité, le Premier ministre en l'occurrence, sous l'instruction du Président de la République, sa réaction a été très positive et salutaire. Jusque-là, on, on, a constaté qu'il y a arrêt des travaux sur, sur les sites, les sites que nous occupons. Donc, nous saluons cette décision qui contribue à, qui, qui est un pas vers l'apaisement de la situation d'inquiétude que nous vivons depuis des années. Nous avons, on avait convoqué l'ensemble des membres des collectifs le 28, c'est aujourd'hui même. Mais hier, vers 18h, vers 16h, euh, on on a été convoqué par la police de Malika sur instruction du sous pour nous demander de sursoir ou bien de reporter cette rencontre, non seulement pour se à la loi, parce qu'il y a eu un arrêté qui interdit les travaux et éventuellement les rassemblements dans, dans, dans, dans ces sites. Nous aussi, en tant que citoyens, en tant que responsables, on se conforme à la décision ou bien aux décisions, de, aux décisions des autorités étatiques. Parce que nous sommes des responsables. Nous sommes également confiants que les autorités vont fouiller de fond en comble ce qui se trouve au niveau de Malika, particulièrement au niveau de la VDN 3. particulièrement encore une fois euh, la zone qui est n'est-ce pas qui qui est inscrite sur le PUD du du décret 2023 823 du 5 avril qui a déclassé 827 hectares ou 826 hectares au niveau de la bande de Filao de Malika. Ce que nous attendons des autorités, d'abord euh, d'installer une délégation spéciale au niveau de la commune de Malika. Parce que euh, les populations ont assez subi d'injustices, mais aussi ont assez subi des dérives administratives de l'autorité euh, communale, Mamartala Gadiaga en l'occurrence. Donc ce que nous attendons d'abord, à part cette décision de délégation spéciale, euh, y aura, on, on attend d'eux un audit. Le troisième point aussi, c'est l'intégration des populations ou bien la prise en compte des populations qui occupent actuellement, qui sont les premiers occupants de ces sites. On, on, on propose également la mise en place d'une commission autonome, indépendante. Une commission qui sera composée des différents acteurs, éventuellement des acteurs étatiques, mais aussi des acteurs qui occupent le site, qui connaissent la réalité du terrain, ou bien les réalités du terrain. il y a ce qu'on appelle les borom tool y a nous en acquéreurs on souhaite de l'État la mise en place le, la plus rapide le, le plus rapidement possible de cette commission qui sera autonome qui va travailler de façon objective pourquoi parce que la plupart des gens censés transmettre les informations administratives ils étaient là ils étaient là mais ils ne transmettaient pas la bonne information donc on ne peut pas ignorer toutes ces familles pendant des années on peut pas même ils sont allés jusqu'à même sur dans la pratique se contredire parce que y a des documents qu'ils signent il y a des engagements et à côté dans la pratique on les voit encadrer des promoteurs qui viennent juste d'arriver donc ça c'est c'est contradictoire de toute façon nous attendons de, de façon très urgente la mise en place de cette commission autonome qui va travailler sur la prise en compte de ces populations de ces acquéreurs de bonne foi, de ces populations qui ont acquis sur la base de documents signés par le maire lui-même, sur la base de documents signés en partie par, par, par, par le, service services étatiques, sur l'instruction du président de la République qui avait demandé à ce que ces personnes soient régularisées. Donc cette décision ne peut pas être ignorée dans le PUD. C'est tout ce que nous attendons. De toute façon, il y aura d'autres plans d'actions parce qu'on a juste voulu se conformer à l'autorité pour ne pas être collés comme motif que nous sommes des perturbés, nous sommes des responsables. Ça fait plus de dix ans qu'on sur le site, mais on n'a jamais été, on n'a jamais fait de dérive. On s'est toujours conformé à la loi. On a toujours eu confi confiance à notre administration. Mais malheureusement, les actes que la plupart de ces administrateurs posent, vraiment ne, ne, ne nous honorent pas et ne nous rassurent pas non plus. Les décisions qui ont été prises récemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des décisions sanitaires. Nous remercions ceux qui avaient prévu de se déplacer. Il y a le député Guy Sagna euh, qu'on a appelé pour lui dire que euh, finalement on a voulu se conformer pour éviter de confrontation. Nous avons également appelé le député euh, Madame l'honorable euh, Fatouba qui est de, de, de PASTEF, qui a des, des, des, des, militants qui appartiennent en même temps au, au, au collectif. Il y a également maire Baragay qui la la, une grande partie de ces, de, ces, de, ces, militants aussi, qui appartiennent au collectif. ya y également les jeunes patriotes qui, avaient, qui nous ont soutenus, qui ont fait une sortie que nous saluons. Parce qu'au moins, ils reconnaissent notre existence, ils reconnaissent aussi que nous sommes victimes. Nous sommes allés jusqu'à recevoir l'appel de Sablux, qui est le plus grand, notre plus grand, je ne vais Mais de toute façon, ils, a, ils nous ont causé beaucoup de tort. Ils ont voulu euh, exposer leur situation, mais on leur a dit que... Parce qu'ils reconnaissent que nous sommes victimes. Ils disent qu'eux aussi, ils sont des victimes. Ils ont pointé du doigt l'administration. Mais nous, en tout cas, ils ont dit que c'est l'administration qui les a, qui les a, qui en dérive. Donc nous, on n'est pas là pour apprécier. Ce qu'on apprécie, ce sont les opérations de démolition qu'ils ont entamées sur des autorités étatiques particulièrement la police parfois c'était la gendarmerie donc c'était ça comme information Mais euh, aussi le PID effectivement effectivement euh, on a saisi le président de la République nous avons également saisi le ministre euh, des Finances nous avons aussi officiellement saisi le Premier ministre qui ont assez vécu aussi de d'injustice nous aussi de notre côté En tout cas, ce qui est à notre niveau, on, a vécu, on en a assez vécu. Et on espère qu'ils vont revoir le PUD, n'est-ce pas, pour au moins prendre en charge ces réalités. Parce que y a des réalités économiques, parce que y a des zones qui sont toujours cultivées. Il y a également des réalités économiques liées au, logement. Donc il y a des bâtiments qui existent là-bas. Il faut tout, faire un acte pour sauver ces bâtiments.